Moustapha Dieng maa ngi lay nuyu. madame moro maa ngi lay fay. Moustapha Dieng nga nekk coordonnateur taxawu Sénégal foofu ca Koumpentoum euh, déjà ñu lay euh, laaj lan moo waral euh, tekk-tekkaaral bu Khalifa Ababacar Sall euh, depuis ñu tabb Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaw yow yaa ko jërëjëf a moro am ndëkkaleel ci question bi mais wolof Njaay mooy ne ku tekk-tekk woon la yoon. te wolof aussi mooy wax suy taw kenn du fobeere yàlla dafa def ñu doon jongante fukki candidat ak juróom-ñeent ba kenn ki falu ci cinquante quatre pour cent le vingt quatre mars deux mille vingt quatre président Khalifa Sall ndax neen ne néewul tekk na parce que le vingt juillet bi passé natt nañ élection yi. càmbar suñuy résultat xool fan la ñu gagné fan la ñu gagné lan moo sooke suñu laaj bi mais aussi définir ay perspective te new tekk aussi parce que fan yi passé semaine bi passé am na benn journal bu def à la am ne président Khalifa Sall dafa dumóoyu basam sacrifié barte di waxtaan ak nguur gi mu jël téléphone am woo journal boobu ne ko loolu dëgg doxul ci tànk yooyu moom mu ngi gëj a gis président Diomaye en février deux mille vingt trois bi yeewi askan wi tase donc xoolul leen tey demul ci ñoom tey donc loolu mooy maanaam àdduna wante nag ci biir tontu boobu leeral na la am na ñu nekk ci biir coalition bi mbala ci taxaw ñu bëgg ñu dem fekk ci nguur gi liggéey ak ñoom ngir intérêt général mais moom doxul ci loola moom sori na lool donc pour wax ne ni président Khalifa neewul tekk wante nag aussi. nguur gi nga xam fal nañ ko. Mm. Euh, ñu ngi door a tegu defaguñ seen emplacement bu pare lu jox nga bëgg a weddi dafay mel ni kuy téléphoné ci sabar même soo amee dëgg nit ñi duñ dégg li ngay wax moo tax expérience bi ko yàlla jox ci wàllu politique mu fekkee fi ay régime depuis Senghor moo tax ñu ne gum ñu dalagum. ci li nga xam mooy question d'actualité yi nga xam ne ni tey am na yeneen opposants yu koy ŋàññi donc pour gàttal daal président Khalifa Sall mu ngi teerlu xaar euh, bu waxtu bi jotee Eh, parce que ci cent jours cent vingt jours mënoo nattal ñi li ñu def baax na mbala baaxul mun nga saa wax lu baax li mais fekkee dafa am samaan mun nga ko notteegum ba dañuy ku bëgg a xuloo itam da ngay mën a denc waxu daaw waxu daaw euh, ñu laaj la si président Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, niñ ko doon laajee def na déclaration de patrimoine am wan na sénégalais lan la am avant muy dugg si nguur gi euh, déjà bien yi nga xam ni wax na ko yow naka nga ko gisee est-ce que c'est normal en tant que agent des impôts et domaines waaw di fàttali rek déclaration de patrimoine suñ ko déggee Sénégal ki ko njëkk a def te këyit ñu forcé wu ko ko 2009 la woon président Khalifa Sall ci benn jury bu am nit ñu nit ñi yaakaar muy Amadou Makhtar Mbow ñoom professeur Elimane quelque chose comme ça moo ko njëkk a def 2009 bi mu wàccee eh, faluwaatee 2014 defaat ko même bi mu demee kaso ñib si defaat ko donc kuy wax déclaration de euh, patrimoine ci réew mi kii ci jiite kuy sa maître Khalifa Ababacar Sall la tudd donc net maintenant nag constitution Sénégal. moo wax su président ñëwee man la même ñeneen ñi am ndomba ba que premier ministre ministre yi dañoo war a def déclaration de patrimoine ba pare ñu publier ko ñu xam ñoom balaa ñuy dugg ci fonction lan la ñu am ci yoon aussi suñ demee ba jeexal seen mandat dañu war a ñëwaat ne ah ñun de lii lañ amoon léegi fii la suñ am am toll donc ñu natt est ce que liñ doon fayee ko payoor boobu may na leen évoluer mbala du évoluer pour revenir ci ci ci patrimoine am bi moom bu muy def campagne am na benn déclaration bu mu defoon mais bii pas seetlu nañ am na lu ci manqué am na benn dix millions am na deux à trois choses yu manqué wa ci bii te en principe déclaration de patrimoine soo ko defee ñu seetlu ne da nga cee juum na bala nga nëb am loo ci nëbb su feeñee yoon war na dal sa kaw maintenant ndax moom li mu déclaré effectivement si wàllu koppar seetlu nañu bari du président bu bari koppar mais ci wàllu immobilier immobilier mbala ci suuf bari na la ci lool te ci fukki at ak juróom yaakaar naa un fonctionnaire warul mun a am lu toll nii lenn say fonction privilège moo la ko may moo tax ñuy wax ne ni il faut ñu xoolaat payooru waa impôt yi domaine parce que du ñoom rek ñoo fi fonctionnaire mais ko leen méngale rek tey ñoom ñoo la raw donc euh, liñ ci gis euh, du président bu am alal comme président Macky Sall bi waxoon dafa am sept milliards yooyu ci soo dajaleel yëpp maximum un milliard am mën na nekk matagu maintenant salaire bi aussi gis nañu publier salaire au président pour rappeler que président Abdou Diouf cent et quelques mille par mois matuloon un million donc tey loolu mun na nekk transparence la nañ koy rafetlu ci ci li nga xam ne ni génne nañ ko journal officiel sénégalais xam président de la république jiite lii lay fayee ko par mm. euh, ñu commencé aussi di divulguer di wane DG lu ñuy fayeeku PCS lu ñuy fayeeku ainsi de suite naka nga gisee transparence boobu nga xam ni régime mu Diomaye bi si lañ soobu. man yaakaar naa loolu jaru ko fi yoon xam nga yëf yi lan moo am solo. directeur yow denk nañ la direction Sénélec bala ñu donc la direction SAPCOM bala ñu denk la feneen yow fi ñu la dénk koppar yu ñu la natal est-ce que doomu Koumpentoum bi nekk Payar Sinthiou Tabanaani bal bu nekk ci gox goxaani ay Bamba Thialène ay Alto yegg na fafa yow suñ la defee déjà ci côté domaine tel est-ce que waa Xaraxene bala wa waa waa Tomboronkoto jot nañ ci loolu moo am solo Payor bi parce que ay grilles la. maintenant nag état bi mooy xool est-ce que grille boobu méngóo na ak fonction su méngóo fonction amul benn problème man gis naa fi DG bu ñëw wàññi lu salaire am Thierno Alassane Sall bi ñu ko fi defee ARTP dafa ñëw ne man liñ may fay gëm naa ne nii ëpp na ko wàññilu ko naa donc loolu aussi daf leen di exposer nit ñi xam rupture la mais fi nga fi fi muy amee solo mooy ci dans la transparence ci li ñuy liggéey mais jébbaane lu ñuy fayee ko pour man dañ leen di exposé adduna bi yëpp xam ko loolu pour man du transparence à boole la mais transparence bi fan la koppar yu ñu leen nattal yow ministre nga mm. directeur nga chef de service nga li ñu leen nattal war a dem ci askan wi na yegg ci askan wi mu jaar dans les règles de l'art mu respecter règles de passation des marchés moo am solo mais du DG bi am na cinq millions ñu revoir grille bi loolu moo am solo du ay divulguer ay payooru directeur mbala ay ministre comme yow daal d'accord si ni ñuy divulguer salaire parce que dañuy d'habitude dañuy wax ne salaire dafa nekk loo secret voilà lu euh, nit ki sax sa jëkkër waru ko xam wala sa jabar waru ko xam voilà voilà bien yow miy jàngalekat bi tey di nga gis jeexal nga wax ji donc dafa am loo xam secret la nit kee ko liggéey parce que nu mu def ba nekk directeur kenn xamu ko hmm. sur des compétences la mbala ci liggéeyam ba mu dem foofu noonu li ma wax li ci am solo daal moom liggéey bi muy liggéey fi ko dénk kër gi ñu ko jox li fa nekk nañ def pexe mu yegg ci askan wi li muy fayeeku na ma il paraît que vers les années am na benn directeur BCEAO bi doon fayee ko trente millions. Mhm. parce que aussi tey kuy yore xaalis di manipuler un certain une certaine somme d' soo ko mettre ci yenn conditions yi finalement li nga xam ne ni tey la mu waroon dem ci askan wi loolu lay jël def ci poosam mais soo ko defee mo am benn stabilité financière liy dem ci askan wi de ma yegg see askan wi. Mhm. parce que ni nga ko waxee sànq le salaire est secret maintenant nag y a des rapports yuy génnee loolu c' est à l' interne c' dans l' voilà askan wi man pour man ce n'est pas nécessaire ñuy xam jàngalekat bi lan lay fayee ko l'essentiel seen doom nañ mëtal seen kantom horaire euh, infirmier d'état bi médecin bi na dem liggéeyi xëy heure wàcc heure faj malade yi su n'est pas parce que wax nga médecin bi lii lay fayee ko mbala loolu mooy indi transparence ci ci wàllu gestion malade. Mm-hmm. Euh, Moustapha Dieng ñu gis ne aussi accident yi bari na ñi siy faatu bari na gis nga bi mujjee am fële ca Ngaye Mekhe euh, pratiquement fukki bakkan te régime bi fi weesu jëloon na ay mesures ñi aussi ñu ngi jéem a redresser mais ba léegi euh, tali bi mi ngi faat. waaw jërëjëf madame Moreau di jaale mbokk Sénégal yëpp di ko jaare président de la république tey moom mooy président de tous les sénégalais ñi gaañu ni njabootam leen. yal na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana di aussi jël samay kaddu kilifa Khalifa Ababacar Sall aussi bu ci def benn post démb ba effectivement rappeler autorités yi bees yi war ba lii ñu mun koo dakkal parce que ni nga ko waxee sànq euh, régime bu jeex bi parce que gisoon nañ accident bi méttiwoon Kaffrine yeneen teglu ci ba ñu ne léegi oto du daw guddi donc finalement du oto yi du du heure bi ñuy daw bi ndigg ba bëccëg donc responsabilité partagée la hmm. askan wi am nañ ci responsabilité état bi am na ci responsabilité ñiy dawal am nañ ci responsabilité am na benn réew nag de la sous-région benn président daf ne waxoon chauffeur yi ku def dawal weer defuloo accident ma jox la dara ñaari weer defar finalement ñu dem ñu ndekete yenn chauffeurs yi ñoo ko doon tey mu ne léegi nag ku fi rey nit ñu rey la mais bi ñu ko defee réew moom am accident réew boo xam ne amul yoon donc y a de ces mesures maintenant nag pour ñu càmbar ko parce que feebar tant que xamoo li ko sooke doo ko mën a faj tey du du du du chauffeurs yi rek wala les transporteurs kese lañ war a dem il faut que ñu associer lu ñuy wax les sociologues les psychologues les travailleurs sociaux yeneen secteurs yi ñu càmbar accident Sénégal lan moo ko waral suñ ko jàngatee ba xam lan moo ko waral su boobaa ndax lañ koy mën a éradiquer mbala wàññi ko ba nga xam ne ni accident ala kulli alim dina am ci avion gis nga mais c'est rare bateau dina am mais c'est rare parce que ñooñu jël nañ ci ay moteur yi nga xam ne nii balaa ñuy sóobu ci géej bala avion bi di naaw à quatre-vingt-dix-neuf pour cent xam nañ avion bi dina yegg fu mu jëm mais est-ce que c'est le cas dans notre transport commun non donc ñun tey ñun wóor nañu wóor na yàlla fekkoon ñoo jotoon réew mi amoon nañ ci solution te inscrire nañ ko dans la a fondation du transport sénégalais et je pense que du ci télé bi mbala rajo laa koy mën a waxee nii mm. mais dans notre programme ñu woontee président Khalifa Sall nous on en a des solutions euh, primaires mais le mal est aussi profond il faut que ñu gën ko gëstu xam lan moo ko sooke pour ñu mën a trouver la solution idoine. Mm. Euh, Moustapha Dieng aussi euh, leneen luy fàdd yóbbu moom mooy géej gi ba léegi ndaw yi ñu ngi jaar si géej gi di faatu ñii ñu ngi jaar si désert bi ñu leen di faat di leen tëj si ay prison désert euh, si dëkku naar yi naka nga gisee phénomène bi ba léegi mi ngi continuer waaw di ko méttitlu rek euh, métti na lool wax naa ko sànq ci ci tubaab ñun yàlla def ñu may réew moo xam am nañ ndox am nañ suuf am nañ naaj je pense que tey ba léegi volonté politique moo ñu manqué ndawu Sénégal yi mun a pays nawet ba wàcc mu mun ci faj ay aajoom mbala kiy xëy ci atelier menuisier mbala kiy xëy ci atelier tailleuram jeune bi nga xam mu ngi mu ngi dawal leneen dañoo munul gis seen bopp Sénégal moo tax ñuy dugg ci lii nii mais yaakaar naa tey suñu doxaloon euh, politique migratoire bu baax itam amuñu ko parce que ñun ñëpp xam nañ tey réewu tugal yi population yi dañoo màgget comme que dañoo màgget dañoo soxla suñuy ndaw donc ñun ñoo waroon a jël ay dispositions former suñuy ndaw waxtaan ak tugal ne leen yéen soxla ngeen lii ci seen tool yi ñun am nañ ay ndaw ñu def une politique migratoire organisée parce que réew yu fi développé yu bëri migration jàppale na leen suñ demee liggéey foofu benn période ñu ñibbi si waat suñ ko normalisé woon ñu jaarale ko ci yoon loolu euh, mënoon na ko wàññi leneen ni ma ko waxee aussi na te Sénégal am lépp ñàkk lépp la ñu donc volonté politique bi des na lool mais aussi ndaw yi ce n'est pas parce que liggéey aussi amul ñuy sacrifier seen bopp man encouragé wu ma leen ci mais je me rappelle jour sama sama leader dafa dem ci zone yooyu di wax ak ñoom mu ne ku toll fu ndaw ñi tolloon nga def li ndaw ñi def duñ leen condamné totalement parce que gis-gisin bi suñu politique migratoire réfléchie organiser moo ñu manqué suñu réew man miy wër Sénégal xam naa gis naa les potentialités de ce pays de Médina Yoro Fula a Kédougou de Kédougou à Matam foo tourné suuf la même côté kaola gi ngay yaakaar suuf si baaxul ay Kaffrine àll kese la il suffisait que aujourd'hui que ñu organiser wu mbéy mi ku ci béy gis boppam ku sàmm gis boppam ku béy maraîchage gis boppam ndaw yi dinañ toog fii liggéey ñu mën a dem ñi dem ñibbisi xam ne ni ku fi toog itam tekki parce que gis nañ ñu dem foofu sonn ñibbisi door a tekki fi donc pour revenir à la question solution bi tey état dafa war a jëlaat euh, la politique migratoire entre les deux mais former ay ndawam jéem leen wutal liggéey fii ñu mën liggéey ñu war a tukki dem ñëwaat ñu jaarale aussi ci transparence voilà merci beaucoup ñu ngi lay. ah bi fàtte nga ko de. waaw diplomatie bi aussi euh, <laughs> naka nga gisee wala relation <laughs> diplomatique euh, si diggante Sénégal ak euh, France parce que si régime mu Diomaye bi yow en tant que sénégalais ak discours bi nga xam ne ñoom Diomaye moom lañ doon tenir avant ñuy jël réew mi envers la France ban type de relation. relation ngay xaar euh, si diggante France ak Sénégal te déjà Diomaye dem na ñaari yoon France. waaw effectivement diplomatie bi déjà man je pense que am na benn question bu ñu war a régler ci suñu biir Sénégal diplomatie armée loolu président de la République moo ko war a gérer du premier ministre. je pense que temps benn mag ci ci ci chronique muy Babacar Justin Ndiaye wax na ko ñeneen àddu nañ ci loolu dañ ko war a leeral lépp lu jëm ci diplomatie chasse gardée au président de la République lépp lu jëm armée chasse gardée wu la alors que gis nañ ki premier ministre ci dugal loxam donc na ci génne loxam ba mu set wecc te ba pare aussi ni ma ko waxee ñun dañu jël nguur gi dañu jëloon ay engagement yu bari te engagement balaa nga koy jël da ngay natt dañoo natt réew mi xeel fépp fuy métti ñu ne fépp fuy métti Sénégal ñun am nañ ay solution su ñëwee dañu war a appliquer maintenant nag liñ doon wax démb soo seetlu ak am tey wuute na lu bari ñoom ñoo doon France dégage ñoom ñoo doo euh, France dafa teg euh, euh, kii am ci suñu suñu baat mais te en heure trois mois deux fois président bi dem na France donc yaakaar naa ne ni li ñu bëgg ñun mooy une relation respectueuse diplomatie respectueuse parce que Sénégal na eh, maître la ci suñu waxee diplomatie kenn duñu ko jàngal fonction yu gën a am solo ci àdduna bi ab sénégalais géré na ko donc tey suñu defee appel à nos anciens diplomates ñi toog càmbar ak ñoom dinañ xam nan la ñuy def ba nga xam ne duñu réer ci suñ diplomatie mais ni muy demee nii dafa mel ni liñ doon ŋàññi le président Macky Sall démb mais ñoom lu raw loolu la ñuy def tey parce que loolu na ñu gis moins de de trois mois tukki nga fa deux fois même su doon président Macky Sall première sortie en France la demoon loolu ñu ñaawloon nañ ko mais ñoom itam tey dem nañ fa delluwaat nañ fa discours bi changé na même si le président Ousmane premier ministre Sonko génn na par rapport au Catherine euh, euh, quatre-vingtième anniversaire Thiaroye bi gis nañ lu mu wax signé le le le président Pastef mais tey président Pastef ak PM c'est la même chose six ak neuf la mënul takkale boppam président ak euh, premier ministre donc diplomatie bi war nañ ko xoolaat man déjà le ministre des affaires étrangères gis naa ni mu taxawee warul nangu dem sommet Abuja ñu jël jox premier président de la rue ay médiation yoo xam ne ni mu nangu ko daf ko war a ba ma ñibbi sama réew président doo fi jël benn engagement su ñibbisee Sénégal toog ak diplomate yi ne ah ñun de dañ maa bëgg a dénk lii fekkee attan naa ko baax na fekkee am na ay ressources humaines yu ma ciy mën a jàppale ma jël mais mun ñu ne ko yow la rek mu ne waaw donc ça c'est des erreurs diplomatiques yoo xam ne nii un état bu am expérience ci politique du nangu jël donc il faut que ñu xoolaat suñ diplomatie sénégalaise. voilà merci kon Moustapha Dieng ñu ngi lay remercier bu baax a baax. man maa leen di sant di leen gërëm. am mbégte loolu échange ak ci li jëm ci réew mi. Mhm. di fàttali effectivement man may coordonnateur départemental taxaw Sénégal bu Koumpentoum.